ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yi ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañu wax ci ñaari kaawu jeune sénégalais benn bi concerné ku naan Sadio Ousmane Diédhiou yaakaar naa ne ñu bari ci yéen gis nañ ci réseaux sociaux yi ñuy partagé photom mais li gën a yokko tax ñu jagleel ko benn taxaw seetlu bi spécial mooy bi ñu mujjee woon partagé photom YouTube ñu bari dañ doon sàkku ñu leeral mbir yi nu mu demee parce que comprendre ñu situation am maanaam bari nañu ko mënoon dimbali mais dañu gis fotom rek te xamuñ lan moo ko dal exactement loolu sabab ñu def ci tey benn taxaw seetlu ci moom mooy kan fi mu tàmbalee doonoon yaakaaru famille juddoo ci milieu boo xamante nii jaayante dëgg la laaj ngir mën ci génn mu ñàkkante ko ba dugg fac médecine te durant bu muy nekk fac médecine yépp moom ak ay camarade am dañ daan def ay sortie ci ay village ngir dimbali ay doomi aadama ci seen wér-gu-yaram léegi dara desewu ko lu dul soutenir doctorat am feebar daal di koy daaneel jàngoro joo xamante nii mënuñ ko fajee Sénégal faaw ñu évacuer ko bitim réew loolu lépp daan ci ñëw maanaam melokaanu feebar bi ko dal ak li mu laaj ci wàllu moyen pour ku ne ci ñun mën ci waslu àq ci kii nga xamante nii mission ci kaw suuf mooy sauver ay bakkan maanaam sauver Sadio Ousmane jeeju mooy sauver junni bakkan yoo xamante ni ëllëg amaana suñu borom ci loxoom lay jaarale ñooñu noonu ngir ñu mën a jotaat seen wér-gu-yaram beneen kaa bu ñu koy jeexalee mooy benn gone ak taalibe boo xamante ni collectif Aar Daara dañ ko récupéré ngir mu yeggali njàngam muy cas boo xamante ni itam bëri na aussi amalgame ba ci ñun ba ñu partagé woon information bi bëri woon na aussi ay problème de compréhension ba tax nañu ne nañ ci indi benn leeral bu gàtt ci anam gi ñu bëggee woon exploité xale bi daal di formaté xelam jaay ko ay rêve yoo xamante ni tollagul foofu parce que ñun sénégalais aussi il faut que ñu cohérent ak suñu bopp mënuñu xeex yenn jëf ci mel ni seen petit gàlle ci exploité gi ñu exploité xale yoo xamante nii dañoo war a dem jàngi ba pare di soutenir benn waay boo xamante nii tur lay wut bëgg ko nag wutee ci xale bii nga xamante ni ab innocent la xamul dara lim doon def ñun ñëpp jaar nañ ci muy toppandoor ay wuyu jàmbur loolu aussi dañ ci indi ay leeral. comme niñ ko jibalee ci njëlbéenu vidéo bi dañ koy tàmbale ak kaawu Sadio Ousmane Diédhiou mi nga xamante nii dafa soxla taxaw bu baax a baax mais pour que nous soyons plus conscients conscient gën a xam kaam nu mu exactement expliquer d'abord trajectoire Madame, ni ñu nga la période mission mission nous ko suñu borom jagleel muy sauver bakkan Sadio Ousmane Diédiou mi ngi bàyyeekoo ci quartier yi difficile au Sénégal particulièrement banlieue de Dakar muy Samsam 1 mu famille mais la plupart da ngay teel a bàyyi jàng ngir mën a am ci loo jàpp dimbali seen waa kër mais mu ñàkkante ko rek ne faaw ma tekki te ci njàng mii laa ko yaakaar ci noonu la jaaree ci école bu ñaan Tata Diédhiou daal di fay jóge dem CM Thiaroye 2 am fa BFM après ñu orienté ko lycée de Thiaroye fa la nekk ba am bac en 2011 am mention assez bien. gannaaw loolu mu dem Maroc ngir jàng fa la ñuy wooyee science de la matière physique. mais un mois la fa def gis ni mission deug deug ci kaw souf moy sauver bakkan ci la ñibbisee Sénégal intégré fac médecine fixé wu nak ñaari objectif benn bi mooy dimbali ay doomi aadama ci sen wér-gu-yaram ko ci domaine am ba bokku ci ñuy jëmele kanam walum paj biir Sénégal ñaareel bi moy taxaw wa kërëm ci walum fondé famille am vie stable comme bëpp ndaw Sénégal bu am ay rêve té mission bobu nonu xaarul ba génn fac médecine dor ko tambali je ak ay étudiant étudiants yu fac médecine dañu fondé une association de xamanteni de ci vice président te li taxaju a jóg moy di organiser consultation gratuite fep ci Sénégal ngir permettre ñen ci askan wi mën di fàggu ci seen y a yaram ba ci walu a askanam won ko mu def stage ci bu Saraya bobu nak la ko feebar mën ci mission la ko suñu borom natou te période bobu nonu mi ngi officiellement docteur d'état en médecine réaliser rêve bi nga xamante ni amoon na ko depuis des années. ni ko feebar bi dikkee nag mooy gaaw a sonn maanaam même buy sol yéreem sax da ci jëlee coono gu métti métti mu dawal tuuti bakkanam yi tàmbalee xeli deret léegi nag ba ñu defee analyse yëpp ci la nemmeeku ni dafa amee benn jàngoro buñ naan aplasie médullaire dañ leen di rek jox benn màndargay jàngoro jooju nga xamante ni moo ko dal xam nga yaramu doomi aadama day produit naturellement deret gu bees léegi feebar boobu noonu dal ko bu newee ci yaramu doomu aadama bi sa yaram dootul mën a produire ay cellules sanguines yi nga xamante nii ñooy permettre deret bi di mën di reproduire sa biir yaram loolu moo dal Sadio Ousmane Diédhiou ba tax na day dem régulièrement hôpital pour ñu koy may deret ngir mu mën a continuer di dund groupe sanguin A plus la kon képp koo xamante nii A plus nga ni moom wala A moins wala O plus wala O moins mun nga dem centre de transfusion sanguine ne damay may deret Sadio Ousmane Diédhiou parce que loolu moo ko mën a permettre mu continuer di dund le temps que ñu koy évacuer bitim réew ngir mu mën a faju léegi nag lan moo tax mu soxla ñu évacuer ko bitim réew parce que pour que feebar bi mën a wér définitivement ba dootul soxla ñu koy may deret régulièrement ngir mu continuer dund dafa war a def lu ñu naan greffe de moelle te malheureusement xeetu faj boobu noonu muy greffe de moelle Sénégal mënu koo def suñu hôpitaux yi amaguñ xarala boobu noonu donc il faut que ñu évacuer ko bitim réew ngir mu jotaat wér-gu-yaramam et pour lolu budget bi yëpp mi ngi tollu ci 280 millions ci suñu copar ay natangom yu mu nekkaloon fak médecine ak étudiants Sénégal yëpp ñoo ngi sensibiliser fépp ci réseaux sociaux yi mais ba tey mbir yi avancé gul trop ndax moment bi ñu def vidéo bi nii 58 millions ak lu teg la ñu dajale gum yu ci profité aussi di ci jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni jot nañ ci dugal seen loxo mu bari wala mu néew. mais li ñu gën a frappé mooy patt pattaaralu suñu autorités yi nga xamante ni ñun ñaanuñu leen saraxuwuñu leen bu ñu jëlee ko ci mel ni Macky sàll dañ ko jox benn caisse noire boo xamante nii ay milliards la suñu xaalis yu ñu dajale ci impôts yeeg bor yi ñuy leb lépp daal di ko koy jébbal ngir bu problème bu tembere amee loo xam ni kenn sóoraalewu ko woon ci budget bu Sénégal mu daal di jël ci caisse noire boobu noonu dimbali Sénégalais yi koy teewoo Sadio Ousmane Diédhiou bokk ci doomi réew yooyu nga xamante ni état moo ko war a jël en mais ba tey ñoo ngi koy seetaan parce que du célébrité du star mbooloo topp ci ginnaawam ba nga xam ne nii daañu leen mën a récupérer sur le plan politique. parce que ñoom lépp lu ñuy def rek ñu ngi ciy xalaat récupération politique ay jeunes Caaroy précisément Samsam 1 ñoo gàddu seen i leket ak seen i pot di wër ci marché yi parce que dem nañ ba gis ni internet kese doyul ngir xaalis bi yëpp mën a mat. sama gars naa ñëpp actuellement ñi ngi nekk nii pour collecter euh, Sadio Ousmane Eh, def nañ deux groupe amna groupe bu dugg côté sam-sam ñun ñoy dugg côté caaroy bi ñi ngi tollu fi ci testo donc ci marché bi lañ dugg xam nga ak koñ bi télé bi pour mëna fexé fexe nuñ ko dajalé donc ñi ñaan rek yalla lepp mat inshallah képp ku nekk ci baal yi aussi mën nañ si ñëw jàll Thank you. dañ leen di delloo njukkal ñoom ndaw koñam yi nga xamante nii lii rek lañ ko mënal ndax yoruñu ay millions yoo xamante nii mën na ko faj buñ ko yoroon dinañ ko taxaw ci sutura ba kenn du ci jot ndax aussi bu dul dara ab góor la bu amul lu ko gënal kenn du ko màjjaalal mais dañoo ñàkk pexe te lii moo fi sës. waaw barke alxuraan te waa am na lu ñu jàmmagal si Kambaaw. waaw oui waa ñu am ñu loolu. parce boobu daa feebar. dëgg la danaa tànkam lu. mais mais dama ne la population Sénégal la ñuy xaar Moussa waa barke alxuraan

pour lolu nak procédure yaa ngi nii mën ngeen utiliser code marchand bi nga xamanteni ne nii nañ ko fi ngir ñu bëgg envoyer par Orange Money procédure bi moy gëna simple mën ngeen aussi envoyer via Wave ci numéro yi leen officiel n'i. am ngeen aussi possibilité def virement bancaire ci compte am information yaa ngi ni mën ngeen aussi jaar ci plateforme en ligne ci mel ni Litchi lien bank ci description vidéo bi wala cagnotte bi nga xamanteni ni ONG bu nan Sutura daf ko lancer boobu aussi lien bi mi ngi ci description vidéo bi comme que suñu nguur nee duñ ko faj parce que ñoom ci fayantoo lañu nekk ndax gis nañ ni jeunes yu bari ci réew mi gëmatuñ leen léegi ñu ne nañ leen bàyyi ñu dee gis ngeen li ñu defoon ci immigration clandestine ba tey président jaalewu leen te monte bi fi Macron di feebar feebar lu naan dafa corona moom Macky Sall moo njëkk bind benn tweet ne yéeyaay da koy masawu ci ay mais bu suñuy doom di dee bu suñuy doom nekk ci seen buntu aduna benn feebar boo xamante ni mën na jël seen bakkan tëral leen dañ naan pat pataaral parce que dafa am benn en bu ñu jàppal ndaw yi Sénégal yi ndax xam nañ ni gëmuñu leen kon ñun nañu jël suñuy responsabilité taxaw Sadio Ousmane Diédhiou parce que yaakaaru Sénégal la ñun Sénégal li ñu yor ci médecin rek doyul léegi buñ ci boolee nag bëgg a sacrifier ñi nga xamante ni ñoo war a nekk relève bi kañ la sénégalais di mën a faju ci biir réewam comme ni mu waree kon taxaw Sadio Ousmane Diédhiou wareef la pour ñun ñëpp ñu ñëw ci kaaw jeune taalibe bi nga xamante ni collectif Aar Daara daf ko récupérer ngir mu mën a continuer njàngam ci yi mu waree te mbir mi bari ay polémique léegi dañuy ñëw d'abord fan la mbir yi tàmbalee xale bi dafa nekkoon ci mbedd mi di yalwaan am ñu ko doon filmer muy toppaat ci wooyu yenn rappeurs yi. Hmm. Hmm. donte ci benn côté dañ koy ñaawlu ndax ab xale boo xamante nii tàgguwaay way juróom tàgguwoo ñu ko jege nga jël ko di ko filmer di ko dugal ci biir internet bi loolu ñàkk respecté loi ak àq ak yelleefu doomu aadama rawatina xale ci la bokk mais ni mu doon toppandooree woy yi li tax choqué wu ñu woon trop parce que ku nekk ci ñun bi ngeen nekk tut tànk daan nga topp ci ay woy maîtriser parole yëpp booy seet dafa normal parce que ay son yoo xamante nii da nga koy déglu rajo wala sa daan ko tey mën nga ko suivre ci internet bi nga dem ba maîtriser parole yi loolu xale yëpp dañ ci jaar léegi li ñuy laaj mooy toppandoor ay son di ci teguwaat lan la joteeg talent talent bu ñu koy définir ci wàllu musique mooy nga mën bind ay texte maîtriser lu ñu naan figure de style maanaam lan mooy rime lan mooy punchline luy anafor luy name dropping boo ci noppee nga xam na la ñuy tegee ci son ba doo génn gaam loolu la ñuy wooye talent ci wàllu musique rawatina rap léegi est-ce que xale taalibe bii xam na loolu lépp li wér te mooy xam ko tey boo ko bëggoon binduloo texte da nga koy sonal. li mu mën mooy toppandoor son rappeurs yi nga xamante ni ñoom la fekkee seen jamono te loolu xale yépp koy def xale yi Sénégal boo mën di jël jamono jii mën na la woyal plus de dix sons yu bokkul di répéter paroles yi comme ni ko rappeurs yi di waxee mais taxul ñu nekk ay talent dañu déglu ay son di ko toppandoor loolu ça n'a rien à voir ak talent léegi ñun ñan vous woyé oxlu uxlu moy ñi bëgg détourner xelu def ci choses, bi def carrière am nga talent te ñom xam nañ ni boy bi mënul bind texte ci mais comme ko ñi ngi vidéo internet bi ñu nañu ci image pour siw loolu la youtubeur def duñu sax tudd turam diko may buzz parce que mom loolu lay wut en tout cas youtubeur bi nul ci Sénégal def micro trottoir mu defay ay chronique kenn dégluwu ko parce que amul pertinence il est très nul mu wëlbatiku ci comédie bi doxul légui mu ne xaaral ma wutee tour xaaral ma wut buzz ci xalé bi dal di koy dugal ci locaux Vibe radio yi ñun xeetu jëm yi lañu woy oxlu seytaan mais pas yenn rappeur yi nga xamanteni ñun dañ leen respecter ndax ñu ci bari ñi ngi relater li société bi di dund ci seen son te saa yu askanu Sénégal woté ci walum xeex ñom lañu ñu gis mais pas yenn doomu aadama yi nga xamanteni forcer sen bop ci milieu hip hop bi milieu bo xamanteni dafa culture dafa am ay valeurs yo xamanteni da ko maîtriser d'abord parce que ñaata jeune talent ñoo nek Sénégal te ku ci plateau di bind ay textes yu am solo yo xamni dañuy di relater jafé jafe askan wi mais ken xamu leen promouvoir leen les nga bay nga nous ni rap lañu choisir dem ci tout tank talibé bo xamanteni bo pour touti ba mu nga bëgg koo exploité ngir lan bëgg buzz. léegi yow sa tour rappeur lan la. ah booy Faye. utal tour rappeur. da ngay ñu xalaat ñu utal la benn tour wala taalibe le ah. <laughs> doon delloo njukkal waa Aar Daara. ci li ñu xale bi. parce que bëggoon nañ koo jaay ay rêve yoo xamante nii xam nañ xelte ni xale bi amul talent pour bind ay texte wala tegu ci son na dem jàngi ci jàng la toll. li si waat fii tey imam Seydi imam Seydi nag ñi ko xamul mooy papaay xale bii ñu doon wane ci réseaux sociaux yi muy rap ñenn ñi di ko tuddee taalibe rappeur te ñi ko doon filmer defuñu ko woon ci coobare way juram dañu ko bett di ko filmer ci yëfu xale xale boobu nag ñu bëri soxla woon ko pour génne ko ci alquran ji mu nekk dugal ko ci leneen waaye li way juram tànn mooy mu nekk ci alquran ñu waxtaan ak moom proposé ko pour mu jox ko aar daara ñu dugal ko ci internat yi ba nga xam ne ñoom dootuñu ci jot mu nangul ñu ko alhamdulilah rabbil alamina ñu waxtaan ak oustaz Makhtar Sarr mu nangul ñu ne ñu mën ko yóbbu ci daaraam mu nekk fa te dara du ñu ci fekk. bi waa aar daara defee lii nag lu ne dégg nañ ko loolu rek dafay firndeel fi Sénégal toll ci yàqu-yàqu maanaam ab xale bu ñu récupéré pour mu jàng dans les meilleures am ñuy xas ñi def loolu. am na ñu ne léegi na ñoom waa aar daara dem récupérer yeneen xale yi taxawaalu ci mbedd yi. te xamuñ ni oustaz Matar Sarr bi nga xamante ni moo jël xale bi dugal ko ci daaraam moom oustaz Matar Sarr internat la yor parents yi fa yóbbu seen i doom dañuy fay mais daf ko récupérer ngir jaamu ci yàlla daara privé la yor ku fay dugg da ngay fay parce que bu ñu formé aussi sëriñu daara yëpp ay walakaana lañ yoo xamante nii da ngay taxañ say doom rek daal di leen di sànni doo fay doo toppatoo loolu mi ngi commencé soppeeku ñenn ci sëriñ daara yi léegi dañoo essayé di moderniser seen i daara ba benn xale du gàddu pot di yalwaan ci mbedd ndakaaru yi état waru len accompagner copier modèle bobu nonou defu ko dem tëgg ben programme de modernisation de daara bo xamanteni nii njàng alxuraan bu werr munu faa am loolu defoon nañ ci ben vidéo spéciale ci danger bi nek ci programme de modernisation de daara ay lobby ñoo ci def sen xaliss ngir yàq njàngale alxuraan biir Sénégal ba ci programme éducation sexuelle bi ñuy coow yépp dañ ko bëgg duggal ci daara moderne yi nga xamanteni nii état moo ko créé kon état ci bopam mo échoué ci garantir bépp doomi Sénégal jàng bu jaar yoon mo xam ci école ba wala ci daara ja ñenn ñi nag bëgg ko sip collectif art dara nan leen dem leen ngeen récupérer xalé yi nekk ci mbedd yi dañuy wax lool nonu xam ni ñu bari ñi nekk ci mbedd yi di taxawaalu ñu ci baree bari dëkkuñ Sénégal ci yeneen réew la ñu jógee parce que dégg nañu Sénégal yalwaan dafee dox donc il faut que ñu sérieux ben moment té bay di profiter ci occasion pour wut tour wala bëgg sippi sa mère ben wala groupe doomi aadama yo xamante nii neexuñ la kon dañu gërëm encore une fois collectif Aar Daara ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy mëne ndax bu leen neexoon ñu bari ci ñoom ne ay internat la ñu yor ñoo ngi jàngale dans les meilleures conditions di fayeku suñu yoon neewul ci yeneen sëriñu daara yi nga xamante ni amuñu moyen defar ay daara yu moderne suñu yoon neewul ci état bi nga xamante nii ñoo ngi tëgg ay pexe ngir néewal doole diine ci biir réew mi kon ku leen gërëmul waroo leen xale bu tollee ci jàng dañ ko war a yóbbu mu jàngi bu demee nag ba mature ba war a tànnal boppam yoon bi mu war a jël ñu encadré ko ba mu bañ jàdd yoon def loo xamante nii dëppoog naag éthique dëppoog naag déontologie ànd naag diine ànd ak yar kon jàngatu tey bi loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje incha beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf